ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaaj ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy wax ci benn doomi aadama boo xamante ne nii à chaque fois bu amee problème ci biir réew ay problème yu sensible sax dañ koy corrompre pour que mu doon li ñuy woowee avocat yu diable xam ngeen ko mooy maître El jouf Diouf mosuñu nag bëgg a def vidéo ci moom malgré yenn demande yi nga xamante ni ñu ko doon jot mais comme niñ koy waxee rek. seytaane waxul dëgg waaye yàq nab xel te ñu mel ni maître El Hadj mën nañu taal réew ci seen capacité manipuler nit ñi ci seen mën-mën ci wax loo xamante ni du dëgg gëmuñu ko mais dina jéem a convaincre sénégalais yi pour jaxase seen xel yi maanaam ay danger lañ ci li nga xamante ni mooy société bi. maître El Hadj mooy nit koo xamante ni mun na jàkkaarloog sénégalais wax li muy wax te li muy wax yëpp dara gëmu ko li leen intéressé mooy xaalis kese. tey bu ñu demee ba image yu avocat jaratul dara ci mim réew ñu mel ni maître El Hadj ci lañ bokk. avant ñuy gën a xuus ci moom di leen détaillé personnalité nit kii da leen di bàyyi ngeen suivre yenn déclaration yi nga xamante ni def na ko yoo xamante ni nii fii da doon défendre ab mbir ñu teg ci ab diir mu wëlbatiku jaay dignitéem ndax lan alalu àdduna. ëllëgu élection yi ak Macky Sall lan lay doon da ngeen di loxo wala. Eh, da ngay japp li nga japp ne yow dal sa yoon ngay bop jëmal 2019. ma ne lu ma joxante moom la man ma fal ko ba paré won ko ginnaw wax mais non def sa ministre bopp xam nga élection mom lu lay xëñ na ci. 2012 di def ci dawal 5 ans ma defaat ma jëmbat dawal bu bu ci ci bébé ba. waaw ni la ko defee 2012. waaw defal ko 2017. ku ndëgël récemment bu gisé ñu daw. man dama ba ma nekkee ca Ablaye Wade. yaa ngi ga xaaral gasi. non Macky on a des relations am nañu sama xarit la. depuis depuis lu ñu sa xarit la déglu ma déglu ma xarit la woon. maa leen toggal ataaya jàpp naa loolu. voilà fekk la waaw mi léegi nekkatul sama xarit léegi. Hmm. parce que a xarit sa xarit lay doon. non gëmatuma ko dama ko weddi. <laughs> Macky mu ngi nii weddi naa la. Hmm. ndax tu m'as déçu. Hmm. tu as trahi ton peuple. Macky loolu daal. léegi nag wax Macky yeewul balaa muy naaj ñu ne wër wax di la defloo ñu sànq te ci wéet nga trop waxoon naa la paa yi ci kaw fàtte askan bi fàtte jeunesse bi fàtte Sénégal ngeen def seen stratégie rek lu ngeen naxee nit ñi ànd ak mag yoo xam ne xëy na xel lañ am mais nit ñi aussi dafa ñu déglu ngeen ko ci vidéo bii mu yàq lu mel ni xeme Macky Sall dem sax ba ne moom gedd na ko ndax anam gi nga xamante ni moom la yore réew mi kaddu yi mi ngi ko teniroon avant présidentiel 2019 yi mais après biñ ko corrompre li moo nekk réaction am. waaye Macky Sall du seen borom nag ndax daf leen raw lu bëri ndax juróom-ñaari at yi li mu fi def président yi fi nekk yëpp kenn defe ko fi Sénégal commencé na nuru nuru comme réew Europe loolu mooy émergence da ngay ñëw gis yoo xam ne am amul ci réew réew réew yu ndóol yi loolu mooy émergence ci plan la boo xam ne dafay dem ba 2035 mille kon war nañ ko mën a bàyyi mu yeggali keneen ñëw yeggali keneen ñëw yeggali ndax ñu mën na xam développement dund ko bala ñuy dee yàlla na yéex suñu doom yi dund ci naataange te Macky xam na fi muy jaar ndax boo nekkee directeur général nekk ministre ministre d' état premier ministre président assemblée nationale après nga jël réew mi.

selon moi, ay intérêt fi mu kese moy démarche am jamono di dox affaireu 94 milliards yi maître Elas comme que moi avocat bi nga mo parce que yenn ci journalistes yi wër parce que moy créer li nga buzz. légui quand kaw Mamour Diallo yi biñ ko ak équipe engagé pour lan.

nim ko wara a ligéyam nim ko ko mayé de Mamour Diallo dina porter plainte Ousmane Sonko. yaakaar nañ ni bu ni da ngay défendre ki parce que 94 milliards du xaalis bu ndaw mën na réaliser ay projets yu bari ci biir mi bu li wara a ci taxaway avocat moy nga dem porter plainte pour sa client li nga mais Ousmane Sonko bi ak Mamour maître El Hadj Diouf li ciowli di bari bari demul porter plainte en tant qu'avocat da do nek assemblée commission d'enquête bi jeexal ligéyam commission d'enquête bi déglu na ñëpp muy wa trésor wa impôt lébu yi képp koo xam war nga ci xam dara ak le ministre des finances trésorier bi war a génn xaalis bi ñu ne ko xaalis bi dé war nañ ko fay lébu yi paré guñu li ñu wax dal moy dañuy xaar assemblée nationale seen commission boobu ñu créé def seen enquête alors que commission boobu noonu du commission bu valable du commission boo xamante ni am na njëriñ ab équipe bu ñu monté la rek créé pour def divertissement parce que enquête parlementaire boobu noonu amul benn impact bu ñu bëggee mu leer nañu ibbi procès ñi nga xam ne tudd na leen ci ak ki nga xam ne moo def accusation muy Ousmane Sonko nañ leen convoqué ku ci nekk wax mbir yi mu demee yaakaar nañu loolu mooy solution bi mais ñoom dañoo lànk ne ñoom du ñu porter plainte foofu rek nit ñi waroon nañ ci yeewu. lenn daal la ñu xam ne Maître El Hadji Diouf mi ngi koy def depuis bi cas bi jibee ba léegi mooy di saaga di def ay accusations jëmale ko ci gi nga xam ne moo sulli mboodu dossier boobu noonu muy Ousmane Sonko alors que yow am nga possibilité porter plainte mais loolu lépp def ko lenn rek mooy liggéeyam maanaam liggéeyu avocat am li tax ñoom Mamour Diallo jël ko mooy saaga yàq der. il va s'amuser comme ça avec les Sénégalais ñëpp di ko xool rek daal ñëpp ñàkk fayda di ko xoolee ba kañ di ko ci kaso qu'est-ce que ça veut dire ça kii ku lay fooyee du ñu ay doomam nag du ñu malitam du ñu bala buy fubal fu mu toll. xalaatuma ci moom lu dul njublang la boo xam ni yaa ma koy tudd ke wax tuddoo ma ñi nga xam ne ñoo gën a jub koo xam ne si lépp njublang la. 94 milliards yi fii nii pour ñëpp tiit ak pata moom ay wax yu pata lay def wax yu pata yu ngadd ti du vent soob nar kàcc moo tax président mu ne leen dem Saint-Louis ne leen réew kenn du ko jël ci ay wax lu dul dëgg.

yéen a li ay kàddoom la mais maître El Hadj Diouf avant que ñom Mamour Diallo diko engager diko di ko recruter. lii moo nekkoon ay kàddoom jëmele ci Ousmane Sonko ak yenn ci opposants yi. ku gëm valeur ku gëm dignité ku gëm ngor ku am deret bi do sa yaram war nga mëna and def groupe and ak Thierno Alassane and ak Idrissa and ak Abdou Mbaye Anda Usman Ousmane Sonko jadian ak yeneen ndax ñooñu ñoo ànd di bañ ci réew mi loolu nag mbiri yàlla la ndax doole man dëgg mais dëgg mu ne ku am valeur am dignité te deretu góor di daw sa yaram da nga war a soutenir Ousmane Sonko ak yeneen politiciens yi nekk ci opposition bi ci ni Thierno Alassane Sall Idrissa Seck Abdoul Mbaye parce que jàpp na ni ñooñu ñooy ñenn mi ñi nga ñooy xeex ngir askan wi kaddu yi mi ngi ko teniroon avant ñu koy corrompre moom di ko ger mais gannaaw bu mu jotee xaalis ci nit ñi nga xamante ni tey ñoom lay défendre lii moo nekk réaction il va s'amuser comme ça avec les sénégalais ñëpp di ko xool rek daal ñëpp ñàkk fayda di ko ba kañ di ko ci kaso bi qu'est-ce que ça veut dire ça ki ku mu sénégal yëpp lay foyee du ay doomam nag du malitam du ñu bala buy fubal fu donc dégg ngeen ko ay wax waxee tam te loolu tàmbaleewu ko ci nguuru Macky Sall El Hadj Diouf jikkoom ji du lu bees ci moom tàmbali woon na ko depuis nguuru Abdoulaye Wade. ñu bëggoon a noot jaay ñu doole tañ ñu bu mu ñaam ndax Abdoulaye Wade demoon na ba xamatul lu ko të ndax buur nguur day dof loo nit dafa koo fal Macky sàll ndax Sénégal ñoo doyloon ci Abdoulaye Wade képp ku defoon lu dul noonu yow noonu Sénégal nga ndax góor gu màgget gi xamatul lu ko t ndax booba xel mi dem na. bopp bi réer na ko ndax bu mu demee fal Macky sàll ndax bu mu njaam gi Abdoulaye Wade bu ko indiwaat doole ji bi doon jaay ak ak police am di rey nit ñi ak ay soldaram ak place de l'Obélisque ay Mamadou Diop yàlla ko yàlla yërëm yooyu am fi jour boobu contrôle Macky Sall deuxième tour bëggoo Sénégal lii ay kàddoom la moo maître El Hadj Diouf ci Abdoulaye Wade mais bañ ci tegee ay at lii moo nekk ay kàddoom jëmale ci ki fi nekkoon njiitum réew maanaam Abdoulaye Wade moy ki fi gën ci président yi nga xamante ni ñoo fi mës jaar ci Sénégal. do moroomu Macky do moroomu Abdou Diouf do moroomu Macky Sall Abdoulaye Wade du ci moroomu kenn de Senghor à Macky Sall il demeure le plus grand président de tous les temps au Sénégal bu nëpp vision kooku bu ko comme âge Macky Sall tay Macron bu ñu fekk Sénégal dépasser la France hmm? kooku moy président kooku.

mais ay nit ñoo liggéey Italie liggéey Allemagne liggéey France liggéey États-Unis liggéey Canada. moom dal dafa amoon ambition. wad ñooñu ñooñu la mel. tam tam nañ ko fi ndëmb. lu ne wax nañ ko ko waaye ñoom ñëpp du seen morom. donc kàddu yi yëpp ñun ñoko degundo déggandoo. vidéo bi nak dañ ko def pour ne maître El Hadj Diouf mu arrêté. parce que li yëpp dara jaru ko. alalu aduna jarul limi def ni parce que respect honneur ak dignité mo ëpp alal il faut que nit ñi. xam que nit ñu mel nii ay danger lañ ci li nga xamante ni mooy ab réew. parce que tey mën nañ ñuul suba ñu jaune gannaaw suba ñu rouge gannaawaati suba ñu weex nit ñu mel ni ñoo mën a taal ab réew parce que seen intérêt kese moo leen intéressé. seen yoon newul ci askan wi seen yoon newul ci problème yi nga xamante ni mi ngi ci biir réew mi ni ñu amee alal rek baax na te nag amuñu kersa ñu ci mel ni El Hadj amuñu rusukaay ci li nga xamante ni ñi ngi koy def ci jëfin gu ñaaw. El Hadj mooy def li muy def ba pare taxawaat jàkkaarloog sénégalais yi mel ni du moom amul dar lu muy rus. mais li lépp nag ñun du ñu bett lu tax du ñu bett parce que El Hadj li ñu mel def na ko ak Hissène Habré lu ko raw sax la def parce que ki ne woon njiitum réewu Tchad daf ko engagé woon doon ko fay xaalis bu bari pour que mu défendre ko ci procès bi nga xamante ni réewam engagé na ko woon contre moom. lu ëpp fukki at ak ñeent maître El Hadj Diouf doon ànd ak Hissène Habré pour défendre ko. mais lan la El Diouf def en décembre 2014 Macky Sall complot ak Idriss Déby pour que El Diouf bàyyi Hissène Habré parce que El Diouf képp ku muy défendre rek da ngay fës ci média yi tey nekk di wax tay attirer attention nit ñi parce que ñu bari dañ koy déglu ak lamiñam légui nak ñu complot pour que mom mu wor Hissène Habré ken xamul nak ñaata lañ ko corrompre ci alal Idriss Déby rencontré ko ci PET pour la première fois ci hôtel King Fahd Palace lolu mi ngi xewon Dakar après mu déplacé dem pour rencontrer ñi nga xamante ni ñooy xeex après. alors que jamono jooju noonu li xewoon loolee lépp Hissène Habré xamu dara El Diouf violé li nga ni mooy règle métier bii di avocat loolu lépp lu ko waral alalu àdduna donc maître Elas Diouf nit la koo ni xaalis daf ko jar lu donc nit ñu mel noonu dafa baax ñuy wax si pour que sénégalais yi xam lan la capable ci wax nañ ko sànq ñu mel ni moom nañ donc mënuñu leen rek ci biir société bi ñuy manipuler sénégalais yi di wax ni amul jusque parce que dañ leen Nous duñu bàyyi mu donc vidéo bi tey loolu woon jagleeloon ko maître ñu leen di gërëm di leen